waaw asalaamaaleykum yéen waa réewu Sénégal yéen ak diine ju ngeen mën a bokk yéen waa tarixa yi ak tarixa bu ngeen mën a bokk yéen waa tarixa tiijaan ak këri tiijaan gu ngeen mën a bokk ma boole leen di leen ndokkeel ci juddub yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa bi nga xam ne ñun ñëpp fanaan nañu di julli ci moom wala ñu yendu di julli ci moom te mooy tagg yi ñu ci moom te mooy lu yàlla sant naa ne ci alxuraan ne yàllaa ngi julli ci moom malaayikaam yaa ngi julli ci moom yéen jëgam it mi ngeen julli ci moom di gën ndokkeel samay bokk ca Tiwaawan ndax ndékki lii ma toog di di ko ndékkee ci jamono jii may wax ak yéen doomi Tiwaawan na ko togg jox ma ko ñu soxna Umu Kalsoom si bintu Cheikh Abdul Aziz si Addabaax ibnu Seydil Haaj Malik radiallahu anhuma kon nag man lu xew tiwaawoon laal na ma li fa xew nag moom ci bopp jàmm laa ko gise ndax tiwaawa bi ko la fa ka ko fa tax ka ko taxawal ba tax ñuy wax tiwaawoon ba koy taxawal dafa naqari kenn muy iblis mu ne ko nag danaa la ko yàqal boobu ba léegi def na fi yàq-yàq bu ne mais dafa jàll wéy kon bu teewaaw nekkee ci jàmm kenn déggu fa tànk iblis xam la ne kon iblis réussir na waaye feek iblis a ngi jéem a yàq Tiwaawan Tiwaawan nga jël taxoon ñu samp ko te bi ñuy laata samp Tiwaawan feneen samp woon na waaye ba mu demee ba Iblis bëgg la foofa tas lu ko noonu Tiwaawan du agsi kon nag ne Tiwaawan xam ne ñoom ak Iblis tey jii nag lii nga xam ne moom moo am ci gàmm gi man damay wax di leen wax man ni ma ko déggee ni ma ko déggee mooy sëriñ Moustapha si ak ku ko bëgg ak ku ko bañ yàlla nañu yàlla musal ci ñu bokk ci ñi koy bañ waaye moom dafa bokk ci daraje bi ñuy wax muusa wiyatu mu yonent yàlla muusa nam daan waxe te dañ ko yebal ci na bu ko waxee ñëppay mer ne waxam ji ni mu ko waxee dafa ñaaw <laughs> ñoom niñ koy waxe ba moom sob ci boppam sax mu waxal ko boppam ci alxuraan ne ko yadiqu sadri wala yantaliqu yi mu ne sama xol day xat mu bëgg a génne li ma bëgg a génne léeg-léeg dafay të léeg dafay sëcc kon ngal la yow yàlla boole maag sama rakk aaroona moom mooy borom wax ju set ji wax ju lewet ji wax ju neex ci ndax daf ko oon yàlla daf ko ne ko nag xawlaa la xawlan li yéen wax leen ko wax ju nooy mu dem mundi koo rakkam kon nag sëriñ Moustapha ni ma ko xamee ba mu gënee àddina ba tey moom du wax dañ koy waxloo buñ ko waxlooyee nag dana am ñu mu neex dana am ñu mu neexul waaye nag yegg na ci ba laa yantiqu anil hawa bi ci des moo di ne ni ma ko xamee wala ni ma foogoo ne noonu laa ko xamee mën naa juum nag ni ma foogoo ne noonu laa ko xamee muy sëriñ Mbay Mansour toll na ci foo xam ne def desuna ko tuuti mu yéeg ca maxaama yi nga xam ne waajuram yu mag ya muy ñi ko jur muy ko jur ñooña tuuti moo tere mu yegg ca bu ngeen di seetaan rawante welo yi ñu jege lool arrivé bi fekk seen doole daanaka jeex ñu di leen ñuy sprint dernier sprint boobu ci la toll te am na maqaama yoo xam ne mënu caa yegg te déggul yenn wax yi ci noppam ne ko yàlla waxee sanulqi alayka xawlan saqilan yonent bi dañu la teg wax ju metti wax ju diis loolu mënta fexe ba mucc ca ndax bu ca muccee du yegg ca daraja ye te loolooy paas bi nag bu déggee wax joo xam ne ci ñu ko dégg ci seeni xel dafa sëcc ci ñoom nañ ko ndokkeel te xam ne yàllaa nga ko yéegal ci darajaatil ula yi nga xam ne wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru waaye nag wa maa yulaqaaha kon nag yaa cheikhna abou bakar ibnulxaaji mansour ibn seyd xaaji malik radiallahu anhum hani an laka bi dalika alxad alazim waaw looloo tax ci waawoon ba fa tariixa bi sampoog tey buñ toogee ab diir rek seytaane jéem fee taal aw ay waaye ay yooyu dañuy toog ba buñ ko buñ koy fàttalikoo sax bu amee ñu ko fàttaliku di ca wax sax daanaka kenn leen déglu ndax ay wa seytaane mi ko taaloon amu ca la mu bëggoon